ñu ngi ragal troisième guerre mondiale ñu ngi waaj a tàkk si ñoom ñëpp fi nekk boo demee loolu la ñuy ragal ñu ngi tiit troisième guerre mondiale mi ngi tàkk si te dara mënu koo téye te troisième guerre mondiale bii bu tàkkee mën ngaa wax ne mooy fin du monde parce que li am ci arme arme nucléaire ci àddina bi ke benn réew bu ci nekk lan ca am rek boo ko taalee di nga jeexal genn wala àddina bi keneen taal beneen moo tax Einstein bi ñu ko laajee ne ko loo xam ci troisième guerre mondiale mu ne troisième guerre mondiale xaw ma ci dara mais quatrième guerre mondiale xam naa ko ñu ne ko ah noo ko xamee mu ne parce que quatrième guerre mondiale bu ñëwee nit ñi dootuñu amati arme seen arm yépp lakk nañ ko ci seen troisième guerre mondiale ba ba bu ñuy xeex léegi dañuy dellu ci suñu xeexi maam yu njëkk yi ay fettaki fetal ak ay fettaki jaaseeki yëpp ci la ñuy sukkandiku loolu mooy doon quatrième guerre mondiale waaye troisième guerre mondiale moom moom mënu ci wax rek lu moy ne liñ defar ci armement yépp yu garaaw yi yépp bu tàkkee rek c'est fini beneen àddina mooy amaat mais doof doon bii ndax jeex na dafay jeex tàkk lu jeex tàkk nag leneen la leneen mooy sosuwaat su fekkee yàlla na mu àddina bi tukki dafay yeneen ñooy sosuwaat nit ñi delluwaat ca nañ meloon ca seen jamono ay maamaati maamaati maam di xeexee ay etaki fetalaki ay fettaki yooyu mu ne boobaa quatrième guerre mondiale loolu lay doon ah waaye kenn xamul ndax guerre mondiale troisième guerre mondiale bu amee ndax àddina dina fi desati wala déet te fi mu ne ñoom ñëpp moom la ñuy tiit moom la ñuy ragal moo tax xam-xam dëgg la mais luy lor xam-xam technologie dëgg la mais lii lor doomu aadama ci ci biir moo gën a bëri li jëriñ doomu adama ndax doomu adama bii jóg di uti xam-xam ci technologie oh Einstein ci E, e égale cm carré bi mu ko tëralee théorie boobu am na benn alim bu ñuy wax benn alim amérique yi Haymar Haymar moom moo ko moo ko mettre en valeur ba mën a génne bombe nucléaire bi ko defee bañ génne bombe nucléaire mom Aymar moomu am benn euh, égyptien journaliste bu dem mujj ko laaj ko ne ko xam naa nga bi nga demee ba nga xam ne euh, bombe euh, nucléaire essayé nañ ko bam tak hein ah, bobu lo yek yëg mu ne damaa damaa wëccu wëccu damaa wëccu ndax xam li ma indi bi ni mu bonee bu ma yëgoon du ko def hmm? donc moom foofu la àgg foofu la xam-xam àgg ci jafe-jafe waaye itam àgg na feneen ci njëriñ su ko defee nag kooku di defar xam-xam boobu moom la lislaam di defar balaa jublu ci defar loo xam ne résultat am naka lay mel ci nit ñi résultat naka lay mel ci nit oh, ñaari ñaari wàllu yàlla dañoo toog ci kanam benn xaadi juge toog di waxtaan ak moom ñu indi leen ñu indi leen ñu indil xaadi juge bi ñaari sàcc ñaari nit ne dañ leen a tuumaal sàcc biñ leen indee am am kuñ ko am kuñ tuumaal ne kii moo sàcc càcc bi ki ki ko koy tuumaal nag gën a dëgër dëgër dëgër wàllu yi ñaari wàllu yi toog yàlla kësëfal na leen li xew li xew xam nañ sàcc beeg ci sàccut benn wàllu yu bi dem bay bu ko wax ne ki sàccut kii ko tuumaal moo sàcc moroom ki ne ko doo ragal yàlla lu yàlla xam suturaal ko xamal la ko dangay ngay uñi sutura yàlla da ngay lu yàlla suturaal bàyyi sa yoon nekku ci seetaanal rek yàlla bi nga xam ne moo def lii yàlla dina dina feeñal yëf yi dina feeñal dëgg waa ji nga xam ne mooy tuumaal nit ki sàcc nekk ku ñàng di mer di yëg di fittaniku bi muy fittaniku noonu rek li ñuy seet rot rot ci biir jógee ci jógee ci yére yi ah, ba ba ñëw yaay sàcc bi nekk voilà mun na ko gis nga yàlla yàlla génne na ko te sa der yàquwu ci donc bon xam-xam préparer nit ki nga xam ne moo am xam-xam ba bu ëllëgee dina mënu a jëflanteeg xam-xam jëflante boo xam ne nit du ci loru loolu mooy rolu l'islam ak technologie